di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp salaam di ko ñaanalit sunu kilifa diiney sunu kilifa aaday di ñaan jàmm sunu biir Sénégal di ñaan salaam sunu biir Sénégal di ñaan jàmm ci Afrique di ñaan jàmm ci àdduna bi di leen jaajëfalati ah bàyyi bi ngeen di bàyyi xel sunu page Facebook Tali TV macha allah gis nañu koy yéen a ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax

amul benen administrateur bu nek ci bir lepp ma koy gérer sécurité page beeg ak lepp ma koy gérer sam bopp sante len gërëm reen nak di len di jaajëfal yéen ñi commencé won abonné ben de ba tay ñu ngi cent et quelques mille abonnés sunu page Facebook sunu compte TikTok ñu ngi presque bientôt trois cent mille abonnés sunu YouTube tamit nonu loolu day wone ne rek mu ngi gën di am ay abonnés machallah xayna limuy wax intéressé na yenn sénégalais on ne peut pas plaire à tout le monde nag ñëpp mënuñu qui jékki Ah, ne Kaliphone bi lu muy def neex nañu cent pour cent mënul nekk mais daal ñun dinañu def la tout rek ku nu doon bàyyi xel daawaati jéeg ki daawaati waati waati jéeg saa sune rek boo ñëwee lii nga fi fekk mooy rien que la vérité dëgg rek donc ma commencé ko si video bi ngeen xam ne gis ngeen partagé naa ko muy sunu benn compatriote sénégalais boo xam ne mu ngi fii ci France euh, ñu gis vidéo bi si TikTok bi wax dëgg fa yàlla ni ngeen ko gisee sama page Facebook dama dox ci TikTok bi rek gis vidéo bi ba ma ko dégloo ma gis accent bi mu am accent sénégalais la donc sëgam ki ko partagé jigéen la daa mel ni arab la tamit compte TikTok am mu ngi fii ñu ngi koy suivre donc ma xam ne lii boo ko partagé képp ku si mënti def dara rek incha allahu rabbi euh, yàlla sunu borom dalay fay moo tax ma jël vidéo bi partagé ko sama page Facebook ba ba may xool léegi-léegi plus de cinq cent dix-sept mille personnes gis nañ ko à travers si sama euh, page Facebook donc encore une fois ma sant gërëm ñëpp ñi nga xamante ni vu nañ ko ak partagé ko ak commentaire si ba sax laajte nan la ñu mën a def pour dimbali waa ji man nag encore une fois waa ji xaw ma ko aw ay coordonnées kii nga xamante ni moo ko dugal ci compte TikTok am xaw ma ko aw ma ay coordonnées c'est juste gis naa ko ma partagé ko pour mu yaatu encore une fois ba gars yi di ne nañu jéem a def dara it dem naa si compte ba ba ma bësee dama gis femme bi nga xamante ni moo def vidéo bi ubbi na li nga xamante ni mooy cagnotte pour xale bu góor boobu di nga xam ne mooy sunu mbokk sénégalais bi nekk si ay jafe-jafe ba ma xoolee tamit ci compte femme bi gis na ni c'est pas la première fois muy taxaw ay nit yi nga xamanteni dañu nek ci dans des difficultés motax sax ma gëna jël vidéo bi daal di koy partager sama compte Facebook motax it ma jël lien bi nga xamanteni moy lien bi nga xamanteni kep ku ci dugg di nga mëna jël sa 1 euro wala 2 euro wala 50 centimes daal di koy partager dama dem ba guest femme bi moy kan gis ya gëna a dugg ci restaurant yi di jënd ay affaire di ko ñëw di ko taxaw yenn nit ñi nga xamanteni amuñu fu nu dëkk ak mbala yenn nit yi nga xamanteni amuñu li nga xamanteni ni seen loxo jot na seen ginnaaw motax ma am sañ-sañ bi partagé ko pour yenn nit ñi nga xamne damay gis souvent yenn commentaire ñu naan wuñ loog affaire le bi on veut des coordonnées on veut des numéros moi j'ai pas le numéro j'ai pas le coordonnées duma ci dara encore une fois j'ai pas créé le je j'ai pas créé cagnotte j'ai rien créé je les connais même pas c'est juste par hasard je suis tombé si vidéo bi sur TikTok j'ai partage comme l'a fait encore des milliers de personnes yi partage pour rek wax li flankulaayu ay nit yàgg nañ ma di woo ne ma Kaliphone euh, Moussa Sané xaaral ma bloqué la rek ngeen baal ma ma bloqué la tey mooy dernière fois nga gis sama euh, live TikTok parce que on est là sur le sérieux tu es pour faire des bêtises je te bloque maa ngi jégalu ma bloqué Moussa Sané ok mu dem yoonam dootul gisat samay

pour dafa am sénégalais bu nekk jafe-jafe ma ne ko man loolu duma ko def genre bii laa si doon bañ parce que sénégalais il fi nga jël benn affaire nga ne da ngay jàppale benn nit ñu si xaar ëllëg est-ce que yow dañ nga am dara ñoom du ñu xool lu nu mën a contribuer même bu dee benn un euro wala deux euros c'est mieux ñu toog fii naan dañuy andi wax ju bëri man nekkuma si yooyu sincèrement parle Kaliphone yàgg na nekk Sénégal yàgg naa def de live depuis des années et des années nit demagul rajo wala ci télé wala si page Facebook mu ne Kaliphone bi lekkal na ma 1000 francs Facebook laay waxee àdduna moo may seetaan encore une fois nit ñi nag ni nga mel sa kër bul jël yére boobu di ko solal beneen doomu joom doomu aadama mën nga ma bañ côté bu ne mën nga ma ne bokkuñu parti politique mën nga ne damay dénigrer sa leader mais doo ñëw ne ma kalifan bi sàcc la wala drogué la wala tukkatu yàmba la wala nit ku bon la ainsi de suite donc nag nit koo xamante ni taxaw nga tey gis nga euh, loo xamante ni ayibu Kaliphone la dugal ko ci internet du am combat bi maa ngi ci plus de cinq ans Facebook lu muy tàng-tàng ay jamono métti di métti di métti ñu def lu ne amul lu ñu am ci Kaliphone saaga de mën nañ ko papa Kaliphone wala yaay Kaliphone wala ne Kaliphone góor jigéen la wala kalifan sans papier nga wala Kaliphone dootoo dellu Europe patati pata mais nit ñëw teg. ojo boo xamante ni lii ku ko dégg jël loxoom teg si gémmiñam ne Kaliphone moo def jëf ju ñaaw ji du ma sa am nit du ma sa génne vidéo ne Kaliphone mooy jëf jëf ju bon bi du ma sa am xam naa sénégalais sénégalais la encore une fois pour ñi nga xamante ni ñooy samay followers di kontaan si man. donc loolu laa bëggoon wax rek pour côté vidéo boobu nga xam ne dama ko partagé c'est juste dama ko partagé par hasard ku ko mën a jàppale te yàlla tax nga jàppale ko boo ko jàppalee. Qui narale a bu ko yow def nga sa waref moy jappale nga ko rek encore une fois benen bi ma Sénégal ah, rafet nuy la gis Abdou Karim kurum na def ben sortie yaakar ni dañu yenn des prison bi buñ ko deful fi ak lundi dina manifester ainsi de suite ainsi suite bon ma gis yenn nit ñi nga xamanteni ñu ngi nek TikTok bi Facebook bi ñu ngi def ay live di dal ci kawam dénigrer diko saga diko traiter tous les noms d'oiseaux wa war na l'en, sincèrement parler Abdou Karim Gueye ba muy se ci kanamu prison yi di c'est pas bi première fois point de presse bi ki ñuy naan mo nek ci kasso yi c'est son frère ñom ñoo bokkoon sen combat ñoom ñoo bokk seen wax téléphone ñoom ñoo ànd fépp fu ñu mën di ànd mu gis ne que libéré nañu plus de cinq cent détenus frère boobu nga xamante ni ñoom ñoo bokkoon combat kooku bàyyeeguñ ko seen normal mu réagiré nii mu réagiré yéen soi-disant patriotes yi toog nag di ko xas gauche ak droite waroon ngeen mën a def comme abdu Karim Gueye nu mu doon def Abdou Karim Gueye bokk nu kande wax dëgg fa yàlla day jaar nii ma jaar nale mais ku ko xam-xam ne tey ci combat sonko sonko sonko bi dugg na si kaso dugaat si kaso duggati si kaso kon kenn si yéen euh, bien wul placé pour wax abdu Karim Gueye tey xëy na nag bal bi tourné na jamono ji ñoom sonko ñoo nekk au pouvoir bëggu leen Karim Gueye kaas wala leneen déedéet et pourtant bu mu fi doon kaas si jamono nguuru président mag Sall di dem ci buntu prison yi pénitencier yooyu ñi fa nekkoon ñoo fa nekk ba léegi prisonniers yooyu fa nekkoon ñoo fa nekk ba léegi mais ba muy doon dem di kaas da ngeen doon partage naan wax nga dëgg Abdou Karim Gueye prisonniers yi dañ leen war a libérer patati patata loolu ngeen doon wax donc tey jii bu ñëwee yi di kaasaat war ngeen continuer di waxaat même langage boobu ne ko way gars yi nga xam ne defuñu dara dañ leen war a libérer ainsi de mais defu leen ko da ngeen di nekk di saaga moo tax rek nit encore sama bopp moo a la gënal du bañ naa la moom moo war a amaat fullaay boppam xamaat moom moo war a doon kan mu dem mu liggéey toppatoo avenir am ëllëg dimbali bu amee soxna mu dimbali soxnaam bu amee njaboot mu dimbali njabootam Sénégal gi ku toog tey naan danga leen di défendre ñoom na nga défendre rek seen intérêt sénégalais ñoom xool nga défendre intérêt général ñoom nañu xool nga défendre seen intérêt boo défendre seen intérêt dañuy ànd ak yow boo défendre nag intérêt général ñu daal di lay kaas man loolu moo tax Kaliphone kuy xaar ci moom pour muy wër lu la neex nga dóor sa loxo si ëkk sama waxu daawaati jéeg mooy doon sama waxu tey mooy doon sama waxu suba kuy xaar Kaliphone na wax lii parce que intérêt na ma parce que lii neex na ma kon nga dóor saloxo loxo si ëkk parfois ma def vidéo waa APR yi kontaan benn bokk yaakaar partisan APR yi fekk ci bëgg partagé waa Pastef fi mer saaga parfois ma ñëw def vidéo waa Pastef fi kontaan bëgg saaga yenn waa APR yi mer saaga man xaw ma lu gars yi bëgg pourtant benn Kaliphone bi def vidéo démb benn Kaliphone boobu moo def vidéo tey benn Kaliphone boobu mooy defaat vidéo suba encore une fois man duma xool luy neex Pastef wala APR wala waa Idrissa Seck wala waa Ablaye Wade man damay wax loo xamante ni ëllëg si biir lu ma si góobee dama koy gar damay wax loo xamante ni ëllëg si biir buñ may monote dinaa xam ne lii de maa ko def war nañ ma monote te tëdd it buy am maa koy tëdd sénégalais yi dañuy toog fii di la jey ba nga jeyeeku ëllëg si biir bu ñu nee def nga deli sàngam ñu nar la tëj ci kaso bi yaa fa nar a wéet yoog say njaboot ngay gis sa papa sa yaay ñoo lay andil añ sénégalais bi day toog fa fële nekk si tiktok bi di fecc ak di wëy moo tax man loo xamante ni bu ma ko defee bu ma tëddee nelaw ba bittanti rek si laay dox encore une fois komba komba jamono jii maa ko wax maa ko waxaat sama page Facebook kenn jëndaluma ko binduñu si APR bind ñu si benn bokk yaakaar benn nit du toog ne APR la la bokk moo ñëw ubbil ma ko wala nii ngay waxee wala nee ngay waxee moo tax ñii toog di xaar pour kalifan parfois sax nga gis ko commentaire yi saagal Jomaay wala saagal Sonko loolu ay temps la woon guerre la woon xeex la woon ñu nekkoon si mais jamono ji si lu may jublu mooy bu Sonko ki Jomaay defee lu baax ma ne leen def ngeen lu baax bu ñu defut lu baax it ma toog leen ne li ngeen def baaxut loolu mooy sama rôle képp koo xamante ni pare nga pour saaga yi wala saaga Sonko Facebook ubbi ko yomb na amal rek sa connexion képp ku pare pour saaga Diomaye wala Sonko ubbi TikTok yomb na demal nga ubbi sa TikTok nga wut sa connexion nga wax fa loo fay wax ëllëgi si biir loo si góobee danga koy gar man je suis majeur et vacciné du nit moo may waxee nii nga war a defee live wala nee nga war a defee live encore une fois ñoom ñu ngi doog a jël nguur gi gisuma fii encore une fois ban yàpp nga war a mën a jël naan da ngay dal si kaw nguur gi jamono ji ku ko nekk di def rek parce que bëgg nga buzz wala wala damay ne sax wéro sincèrement parler ay nit yu jël nguur amagul une semaine nga bëgg ñëw naan da ngay dal seen kaw di nga wax di nga wax di nga wax ba mar naan ba wuti ji teen ak ak ak forage pour di continuer di naan te doo te te doo mandi kuy déglu waxu nit ñi mu tax laa jeyee nga toog fii di ratatatatat di wax bés boo nekkee ëllëg si biir si ay difficulté nit ñi nga doon gis si say commentaire ñu naan way tu es patriote wala way tu es républicain wala patati pata ñoom dañ toog seen i kër yi di ànd ak seen jabari di tëdd ak ñoom di ànd ak seen doomi di yóbbu école yow nga toog nekk si guuta nekk si ay difficulté encore une fois ku mu neex nag yaa moom sa page Facebook yaa moom sa TikTok ya mom sa youtube lo sentir waxal lo sentir defal mais halatal bés bo nekkee ci difficulté billahi sénégalais bu nekkoon cent ñaari nit rek ngay gis loolu tay Abdou Karim Gueye bi ñaata yoon la ci pour des sénégalais mu nekk si kaso bi pendant dix mois gisul sénégalais bu ngeen demone tiktok bi ñu ngi génne ay salands fecc bu ngeen tiktok bi ñu ngi génne salands wey ki nga xamanteni mooy euh, comment dirais je Assane Diouf ñaata at la def Amérique lan moo koy yóbbee coono bi yëpp tey mu jóge Amérique ñëw Sénégal mu ne day xeexal sénégalais yi sénégalais yi ngay xeexal ñoom bëgguñu nga xeexal leen ñoom ñu ngi si ay fecc ñu ngi ay Savon ñu ngi yu kenn xamut nit da mais bu jotul nga doxi Boy nga encore une fois conseil dégg nit je pense bien encore une fois à bon entendeur salut lool man de maa ngi fii France wax dëgg fa yàlla France gi ma nekk tere wut maa ngi jege sama Sénégal bu ma gisee nguuru jomaay ceeb yokk mën naa ne jomaay saaku ceeb de vingt mille la doon jar andi ngeen ko vingt cinq mille du luy ngeen waxoon bu ma gisee université bi di kaas mën naa taal sama page Facebook ne yéene na woon kaas war na jeex si université yi kon lacrymogène bu mu tàq waaye nguur boo xam ne yenn ministres yi sax defagunu passation de service nguur boo xamante ni defaguñu sax conseil euh, euh, ministériel nga bëgg a toog di kaas si nguur di dal si nguur boobu yow lan nga bëgg en fait lan nga bëgg loolu nag ku bëgg buzz wala toog di déglu yenn kañe yi toog di la naan way vraiment euh, tu es républicain c'est toi on est derrière toi fii y a pas de de nee naa la nit bu rep ba dof doflu ba gars yi dugal la si pax loo si góobee ëllëg dang koy gar Assane Diouf bu démb bu doon tey barki yonent yàlla Mouhamed du toog yëkkati benn kàddu sànni ko nguur parce que mu ngi woon Amérique nekk ak jabaram nekk ak ay doomam nekk si jàmmam nekk si salaamam nekk des dizaines d'années biir Amérique mu jékki-jékki di dal nguur di wax lu dul noonu nguur gars yi di toon dix mille personnes di ko suivre en live cinq cent mille vues la doon am année mu tey sénégale yooyu seetaan nañ ko tey mu ngi noonu def ay mécanique ak yu kenn xamul foofu sa Sénégal même bu dee y a pas sous-métier mais encore une fois képp ku ñu ne da war a wax xamal loo nar wax man mi tey erreur bu mel noonu daloon na ma man mii erreur bu mel noonu daloon na ma yaa war a wax rek ma toog di wax wax bay saaga police ak saaga gendarmerie saaga euh, euh, euh, président de la république fekk yoo sénégalais rek ñoo la doon jay di la partager di la naan yaa fi ne nga gis ampleur boobu rek di jayeeku buñ la tegaloon asamaan si sax nga ne buy daanu nga teeku bu démb doon tey loolu du ma ko def heureusement ba ma jàkkaarloog ñi ma ko doon def jéggalu leen heureusement it ñoom si seen xol bu rafet ñu jéggal ma mu bañati dal nit encore une fois wax naa ko léegi Abdou Karim Gueye kurum xaq depuis des années saa yu génnee kaso rek deux mois lay defaat dugg kaso kooku ana avenir am tey lan la construire pour jabaram lan la construire pour ay doomam lan la construire pour waa topp réseau bi rek topp réseau bi ñu lay jay ngay jeeku adada doy na loolu nag dama koy wax pour tout le monde pour nga xam ne yenn nit ñi c'est vrai baax na lool ñu am ay followers c'est vrai baax na lool ñuy wax dix mille personnes di ñu déglu mais tamit yaa war a wax warul mën a tax nga toog lu la neex nga bëgg wax wala di jayeeku di balballu ëllëg si biir boo duggee dans les problème sa yaay ngay gis sa papa ngay gis sa doom ngay gis sa mag ngay gis ñiy dëkk ak yow si benn koñ sax yàlla xam nañu doo ko gis sénégalais kenn mënu leen xeexal ñoo fi doon toog ñu ne sunu senegal gi mu ngi baax yenn sénégalais préféré nañu si lu ëpp si senegal nee nañu Macky Sall defoo fi dara li ñu liggéeyal gisuñu si dara yow lañu bëgg nga jóge feet ak Amadou Ba ak yeneen ak yeneen keneen lañu soxla damay def nii seetaan leen. bu ceeb bi nekkee cinquante mille ñoom ñoo ko choisir bu courant bi di coupé waat ñoom ñoo ko choisir bu ñu toogaatee di dund yeneeni jafe-jafe ci dunia ñoom ñoo ko choisir encore une fois nit ku ne nga occuper sa bopp toppatoo sa bopp man de si loolu laa nekk néew ma du ma génn di live de waaye damay concentré wu sama bopp wax naa leen ko xale bu ndaw laa commencé gu ma yor bant bay jaawaguma nekk gu ma paa lompa ju ma France gi bu restaurant muy rahas auto, muy travaux publics lu mu dédé bu ba ndaw ba ndaw ba ndaw am sa euros bu am am euros sa euros ba sa euros presque million ak lu par nga japp sa nga sétane sénégalais lu Sénégal ñu ngi koy ñaan suñu borom ñu naree dëkk it si coono ñoom ñoo ko choisir man daal wax ju bëri comme ni mu leen koy waxee bu kenn gis ne que Kaliphone léegi dafa changé discours mosuma changé discours mais nag sama bopp moo a la gënal du bañ naa la dem leen si TikTok bi benn maam Ndiaye savon buy live naan rek dix mille personne a koy seetaan yow boo ñëwee toog naan da ngay live pour wax si jamono jafe-jafe sénégalais yi ay trois personnes lay seetaan ki quatre personne ñoo lay seetaan mieux vaut nga wu nekk si sa bopp man de loolu laay wax képp koo xamante ni yaa ngi si réseaux sociaux yi muy côté gauche muy côté droite ak côté diggante beeg na ku ne focus ci sa bopp le temps passe temps bi ma perdre rek ci nguuru ab euh, président Macky Sall gii na ma si yàlla dimbali ma bañati perdaat benn temps ci beneen nguur aw ma jot bi sax ma parler fi may focus fu mu toll nii mooy góor-góorlu sama bopp xale bu ndaw laa maa ngi fii France góor-góorluwaat bu baax a baax bu ma fi defee attaque wala ñaari attaque bu ko defee bu ma ñëwatee à Sénégal gële bu ma ñëwaatee sama néeg boobu wala sama kër googu nga xam ne famille laa dëkk ak ñoom ma mën fa defaat peinture mu gën a rafet incha allah rabbi si loolu lay focus ku gis ne Kaliphone tapet nga yow yaay guerrier bi. talal sa Facebook nga cëppi-cëppi nga ñammi-ñammi waxal sonku lu la neex waxal Jomaay lu la neex waxal police wala justice rew mi wax leen lu leen neex mais man mom inshallah allah rabbi sama soow defna ci si mu sedd guuy ak toni suukar jaxase ko pour nan aw ma problème ak wa Pastef aw ma problème wa Benno bokku Yaakaar ku nek Pastef bëgg problème ak man bismillah ku nekk Benno Bokk Yaakaar it bëgg problème ak man bisimilah sama kàddu tey lii la focus ci liggéey na Jomaay liggéey na Sonko liggéey na beneen sénégalais ca menuisier ba liggéey Abdou Karim Kurum xaq bu dee menuisier la na jublu suba ci menuisier bi mu woon sénégalais yi le bon exemple ne dañoo bëgg Jomaay liggéey man Abdou Karim Gueye maa ngi si menuisier bi damay liggéey beneen activiste yi bu nekk si réseaux sociaux yi na focus ci liggéeyam na wane ne que damay jaay tiir wala damay jaay gerte maa ngi nii di liggéey na ñëpp liggéey mais ñee munuñ toog di bëgg liggéey yow nga ubbeeku di wax di wax di wax di wax di wax après ëllëg ñu naan way suñu Sénégal tardé na bu Sénégal googu tardé tu fais partie ñi tardal Sénégal parce que jamono jii kat liggéey moo gën wax ju bëri ji focus leen si liggéey yàlla def jàmm si Sénégal yàlla def salaam ci Sénégal yàlla jàppale Sénégal yépp ñi nekk si difficulté yàlla góor euh, yàlla continuer di leen di taxaw ñu jóge si difficulté yi nekk inshallah rabbi sama kàddu tay di la woon du si lu gënoon tax ma def vidéo bi sax moy vidéo bi nga xamné ne nak nag sama page Facebook am sénégalais yi nan dañ ko bëgg dimbali envoyé lien bi Kahamne xamné sénégalais bo paré pour dimbali kooku mën nga ko dimbali xawma kan la ki ubbi cagnotte bi vidéo bi c'est juste dama ko partager parce que ay nit dañ may suivre téléphone, hein, def nañu lit est-ce que dinañ jot xaalis bi est-ce que patati patta délit? na ko ne focus sa bopp jaajëfal naa leen sant leen gërëm leen ku gis ne Kaliphone euh, jënd na xaw ma lan la ñuy wax te yaa yaa xam parce que am na nit yoo xam ne ñu ngi APR ñu bëri sax bloqué naa leen dangay ngay gis yenn commentaire yi ñu naan Kaliphone ma déçu Kaliphone ma déçu dam laa décevoir si lan parce que da ngay toog fii pour xaar ma toog di saaga benn Sonko pour nga wala saaga benn jomaay pour ngareetaan parce que barki démb nee naa jomaay nguur gi yàlla na ko yàlla dimbali ñu am ndam loolu mooy décevoir naa la bu ma la décevoir yàlla naa la yàgg décevoir moo tax damay ñëw di xool commentaire yi par par benn ku ma gis ngay wax yi mel noonu rek je te bloque à temps gi gisat sama live bu ma la décevoir demal si ñi nga xamante ni pare nañu pour engager guerre bi pour saaga te defuñu ay faux compte nag xam nga loolu moo neex nag ñu bëri dañoo nekk si page Facebook yi ubbi ay page Facebook tuddee ko ndaamal daaru ñee ubbi page Facebook tuddee ko càppaacooli ñee ubbi page Facebook tuddee ko nay dëgër te dund mës wane seen kanam bu ñu yegee biis xamuñu leen bu ñuy añ euh, nit xamuñu leen man nag nëbbatuuma dama ubbi sama page Facebook wane na maay Kaliphone fu ma dox ci Sénégal ak ci dunia ku ma gis dina ne Kaliphone a ngi nii donc nag ku bëgg a dëggal boppam arrêté leen di ubbi Sénégal njaay wala Tëngéej est wala Dakar est ubbi leen page boo xam ne da ngeen di dëggal seen bopp ngeen wane ne yow yaay Momadou wala yow yaay Paate live nga sénégalais xam ne kii nga léegi ci biir it loo ci gëw bi rek nga gar ko yàlla yàlla def la ñëpp jàmm Kiraba maa ngi lay nuyu bu baax a baax jàngeen jëf Kalidou Diaw et sama gars yi jàngeen jëf ah mbeng mbeng ah nuyu naa leen yéen ñëpp ak loo jàngeen jëf merci sama gars yi ba beneen live incha allah rabi